am li xibaaru njoloor gi jëm ci njiitu réewum Sénégal président Macky Sall jibal na kàddoom la xamle mooy càccum jur gi ci biir senegal ëpp na te fa nga koy ñu ngi koy jàmbat lu bari faw mu taxaw ak ay pexe ci wàllu gurimel la mu wax mooy Macky sàll daañu yokkaat li nga xam mooy jëmtukaay yi ngir gën a fagaru ak aar jur gi waaye tamit yokk daan yi bépp sàcc bu ñu teg loxo ngi sàcc ak jur teg la ay daan ñu teewlu kàddu président Macky sàll dénk na ko suñu reporter mooy defar nañu loi buy criminaliser vol de bétail maanaam dañ ko def délit bu grave boo xam ne crime sax lañ ko def loo xam ne ku ko def bu ñu la jàppee yoon war na la teg gën gaa néew juróomi atu kaso gën gaa néew wala mën na dem ba fukki at ak ay amende yu leer loolu nag war nañu évaluer ginnaaw at walla ñaari at yu ñu ci dox nan la mbir mi demee ndax dafa am loo xam ne du mën a ci am réew réew mënul taxaw si jëmale kanam càmmam bëgg a sàmmkat am bëgg a gi jëm kanam gouvernement bi di ci def li ci def ci wàllu ay pastoraux def ci de bétail di def ci vaccination di ko def ci amélioration génétique loolu yépp ñu koy nasaxal ci loo ay nit ne am ay weeruwaay ba tax mën nañu défier loi bi défier état bi défier éleveurs yi dama ne loolu danañ ko dàkkal ba mu jeex tàkk ci réew mi. kàddu yi président Macky Sall leneen ci xibaar mi ngi soxal politique ci biir réew mi jàppale fi ñu toll ñu tembe Sénégal ñoxor njaay ku jéggi ni dañuy ànd nekk benn waaye ànd gi ñaare day mel ni doxinu kàkkatar wala sax yéegu bëy day gàtt lool fi mu toll nii beneen coalition bu yees taxaw na muy ànd sàmm li ñu bokk lu ni mel ay kàngam ñoo ko taxawal xeeb nañ doxinu li fi nekkoon ci ay coalition tax ñu ànd seen jubba bopp ngir bëgg a jàkkaarloo président Macky Sall ñu gën a xam boobu coalition ñoo ko taxawal Ibrahima Fall beneen pàcc bu yees ci wàllu politique muy coalition bi ñuy woowee sàmm li ñu bokk alternative solidaire kuréel bu yees bi jàpp ne nguur gi fi nekk ni mu yore dëkk bi baaxul. objectif am mooy proposer sénégalais yi leneen lu wuteeg li ñu xamoon mooy

war a dem euh, à la traité ñu ngi koy waxee ñu yokk la ñi da ngay dem juróom-benn fukki at ak juróom-ñett xam nga loolu mooy ñetti at yi ñu si yokk ñu ngi nekk léegi 2016 buñ seize bu ñu si yokkee ñetti at du mooy 2019 mille sa fin ba donc élection législative yi dina jàll élection présidentielle yi dina jàll te élection yooyu bu naree jaxasoo am ay requête am ay saisine bu cour suprême après les cours d'appel ñooñu ñoo koy atte te nag kuy atte waroo waroo féete boor. coalition bi bokk ci coalition Manko Wattu Sénégal waaye ñoom nee nañu dinañ am candidat ci élection présidentielle yi. Manko la ko yëkkati da koo bind ci lu leer ñun ñëpp ñu signé ko Manko ne man mii de du ma front buy dem ci ay élection du ma front ngir boole ay parti yu war a xëccoo ci élection. ku mu neex na nga am sa front électoral ku nga am sa coalition ay parti yu bëri ñoo bokk ci lii di coalition sàmm li ñu bokk lu ci mel ni Ousmane Sonko Ibrahima Fall taxaw tem Moussa Touré Madiaye Mbodj mi nekkee ci yoonu askan bi ak yeneen i kàngam yu nekkee fii ci réew mi. jaajëf Ibrahima Fall ñu laf ci dugg ci mbirum njàng ci biir Sénégal jàpp leen ni li nga xam mooy école Yabou Salim ci biir Sénégal ay at samp na fi boobaak léegi am na fi bangaas yu bari léegi nag école boobee génn ci loxol ña yoroon léegi nguurug Turki Recep Tayyip Erdogan njiitum réewum Turki moo ci teg loxo ci wàllu guni mel léegi moo koy doxal mu doon soppeeku ci wàllum doxalin bi ak administration ba ak management bi ñu fàttali leen fi ñu toll ni école boob dafa bokk ci bangaas yi nga xamante ni Fethullah Gülen moo ko taxawaloon léegi nag nekkoon na xarit euh, ki nga xam mooy njiitum réewum Turquie bi di Recep Tayyip Erdogan waaye léegi nag opposant la mu doon noonam bu njëkk ci doxalin ci wàllum politique li amoon bu yàggul ci Turquie di ab coup d'état donte mu jëmul woon sotti nee ñu nag moom loxo moo ci ginnaaw moom ki nga xam rek Fethullah Gülen moom la kon lépp lu mu am ci koom Turquie da koy saytu ngir na saxal dooleem ba du mënte def lenn lu may jàmm ca biir Turquie googe kon mbirum école boobe nga xam moo di Yavuz Selim ci biir Sénégal fi mu toll tembe ñu ngi jàkkaarloo tasatu xibaar yi daañu ñëwaat ci ngoon gi ca nu mu gën a yaatu xool ba xam parents d'élèves yi nun gisee wàll gune mel su ndaw ña ngay topp wàll googee xibaar yi wéy ci beneen wàll ak mbirum jàng jàpp leen ni fële nga xam mooy ca UCAD ña fa nekk ni ay étudiants ñenn ci ñoom seen aw nekkin bari nay gàllankoor lool muy ñi nga xam mooy waa polytechnique ak INSEPS ñoom ñëpp nee ñu seen aw nekkin de benk ñi ngi koy bari na loo tax nee ñu la ko indi bokk na ca ni wàllum restaurant yi ubbeegul lii moo tax ñu wàcc ci mbedd wala seen naxaru xol ko da njaay étudiants yi nek ci école supérieure polytechnique ak école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel ñom mer bu fatu lañu def la ko waral nak nee tok nañu ñaari wër gëna buñ doré seen ay cours ba tay ji seen restaurant yi kën kenn jiwu ko lool sax jural leen ay jafé jafé ci seen restauration. jang nan wër te dëkkuñu wër te dëkkuñu te lool musul am deux semaines avant ñu daan commencer dañuy dekk Cheikh Omar and rek mo fi mo a def lool ñu wër dekk ñu dekk toogaat weer muy ñaari weer dunduñu Cheikh Oumar Anne moo ñu war a dundal dundaluñu millions yi ñu war a dundalee xamul da koo jël fële dem di ko campagne lay Macky te loolu journée de l' élevage ñoo ngi ni amul lu lekk loolu du dëgg du yoon tey jii Macky Sall moom la ñuy waxal monsieur le président de la république dañu bëgg Cheikh Oumar Anne su mënee nekk tey sax mu jugee direction du COUD. yile ndongo nag daal di joxoñ baaraamu tuuma ki di directeur du COUD ndongo yi jàpp ne njiitu COUD bi deful la ko war ci dossier bu ni mel rax ci dolli kenn mënu koo jot ci téléphone am. instant bii ñuy wax ak yéen Macky Sall moo ngi dem njuum si journée de l' élevage Cheikh Oumar ñoo ngi nii xiif amuñu lu ñu lekk mënuñu fi ñëkku dem fële di accueillir Macky Sall mom directeur du COUD la wala ministre de l'élevage man suma man man man man man man suma ma fàttalikoo ne Cheikh omar an wala ma dégg ñu ne Cheikh omar an sun école la jangé ta fofu lay jangalé wallahi sama yaram day daw. wonan ko ci juromi numéro yi mu am yépp wonan ko ci mënuñ ko jot. étudiants yi nag daal di dox ab doxu ñaxtu dale ko seen ay école ba direction di COUD gàddu seen ay banderole ñoom nag fas nañ yéene lawal xeex bi ba àdduna yëpp dégg ko su fekkente ne njiitu COUD deful dara ngir saafara bi la jafe-jafe ngir tëdd njaaxaanaay ci boobu lépp xibaar rédaction bu DTV gisee na ak waa COUD ki nga xam mooy conseil spécial directeur COUD di Khalifa Babacar Diagne yëkkati na kàddum ci mbir mi nee na li tax restaurant yi ubbeegul dafa am koppar gu ñuy xaar lii moo tax ubbeegul ma ngay faram-fàccee moo ko seetloo COUD ñaari restaurant yooyu ubbiwul bokk nañ ci restaurant yi gën a tuuti li ñuy jël ci ay étudiants. et restaurant yi leen gën a mag sax fi ñu toll nii ubbi nañ pour wax ne du ay jafe-jafe yoo xam ne dafa comme dañ ko mën a méngéeg dañ ko mën a méngaleeg suñu mën-mën wala suñu ñàkk mën-mën waaye lu am la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor restaurant yi ba pare am ay jafe-jafe boobu ba léegi ñu ngi jël suñu kem kàttan pour fexe ba restaurant yooyu ubbiwaat ci lu mu gën a gaawee lii am mooy repreneur bi dina gañe marché ba pare am jafe-jafe

ñun dinañ jël suñuy disposition pour restaurant yi mën a ubbi ci lu mu gën a gaaw a gaaw. leneen ci xibaar ñu xuus ak DTV jàpp leen ni démb juróom-ñetti fan ci weer yu ñu nekk décembre mooy bëccëg bi nu jagleel euh, tirailleurs sénégalais yi mooy jàmbaar yi fàkk tëdd yi nga xamante ni bim du Sénégal donc waaye ci Afrique yëpp ñu leen di wooye ay tirailleurs sénégalais demoon nañ ci xare yi amoon wane fa jàlloo gu péng démb nag màggal nañ leen fàttaliku leen ñaanal leen bàkk leen ndax seenu njàmbaarteem jibi saax jooni ci bi ñu tegee fleur bi ci la ñu door màggal bëccëg bi ñu jagleel ñii di anciens combattants yi atum ren ji ñii di tirailleurs sénégalais yu Verdun 1916 ñoom la ñu bàyyeele bés bi mu nekk ab omage bu jëwriñ gi ñu dénk wàllu forces armées yaakaar ne légitime na ndax dañoo taxawoon temb ngir jàmm sax fi maanaam di fàttaliku ay jàmbaari Sénégal jàmbaar yooyu nekk ay militaire bii nii nag président dafa ni am na benn benn combat bu metti ci euh, donc 1916 euh, mooy mooy euh, donc la bataille de Verdun mu nekkoon bataille bu metti metti donc ay tirailleurs sénégalais yu bare daanu foofu. kuréel gi ëmb mboolem ancien combattant yu nekk ci réew bu Sénégal ak ñi nga xamante ne ni dañoo loru ci ay guerre ñëwoon nañu jëmmal bés bi ba mu taaru woon lool bu ñu sukkandikoo ci ki yor kàddu gi bés bi le dafa nekk bés bu am solo ci ñoom ndax ndaxte fierté la ci wàllu nation bi ba noppi day tax nit ñi xam bu baax fa ñu jaar. la bés bi ñu jagleel tirailleurs yi nekk na lu am solo fàttaliku nag dundinu ñi fi nekkoon ay anciens combattants bi maanaam ay jàmbaar yi ñu gën a ràññeekle seen njariñ gi ñu amoon ci wàllum laame gi bokk na ci itamit bañ leen a fàtte ci seen i sacrifice yi ñuy jotoon def am na solo itamit ñu joxaleen bu baax waay ñoom yi les anciens ci fàttali bés bi ñu jagleel ñii di tirailleurs sénégalais yi ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août ci atum 2004 la ki fi nekkoon njiitu mi di Abdoulaye Wade initié ko woon la mu ci jublu sargal ñii di soldats africains yi nga xamante ne ni dañoo l'armée bu France ci ñaari guerre mondiale yi amoon guerru Indochine ak guerru Algérie jaajëf Jibi Sa ci ngir ay logement yu jaar ci yoon dem ci askan wi mën a sakkan yamu ci ñoom mooy bëgg-bëggu SICAP mooy kër gi sàllo dëkkuwaay yeeg la ci ayu ci état di ko doxal ñu dañoo lëkkaloo ak banque ci biir Sénégal ngir tabax lenn ci ay dëkkuwaay ñaari téeméeri dëkkuwaay leen bëgg tabax fee nga xam mooy ca Lac Rose ndaje man ci wote woon doon xaatim bataaxalub déggoo bam ay kàngam ñoo ko tee woon bokkoon na ci directeur u SICAP Ibrahima Sall Ibrahima Sall kàddoom jib na dénk na ko Aja Njaay SICAP dafa war a tabax ñaari junni ak juróomi téeméeri logement yu muy def Lac Rose ak ñaari junni yu muy def aussi euh, SICAP Diass Diass aéroport de Diass. société générale ñëw accompagne ne léegi dafay taxaw ci suñu wet pour sénégalais bu amul xaalis nga ñëw SICAP ñu yóbbu la société générale mu financé la kër ni ñuy joxe foofu nag mu ngi jar fukki million ak benn. di lu yambu lo xam président de la république dafa bëggoon sikap dimbale sénégalais yi lolu moy sama mission en tant que directeur général si SICAP maa ngi seen directeur général et société régional wa conseil d'administration bi ak euh équipe am yëpp ñu ñëw fi signé convention bi na mustam nak ci Sénégal ndax banque yi bu suñu nangul société ben société ñëw ne ko koo indi danaa ko financer lolu nak deugaraayu sikap ak liggéey bi nga xam liggéey nañ ko sa SICAP ba redresser ko bam nek société bu Sénégal yëpp tek bët lolu mo indi lolu ku wax Lac Rose xel dem ci wàllum jaww jeeg climat bi waxtaan amoon na bu yàggul ca France delluwaat amaat ca Marrakech muy COP 22 ngir waxtaani wàllum alam gi ak jaww jekk la ñu wër climat bi damuy ku ñu koy wax changement climatique waxtaan am na ci lan waxtaani bokk na ci ni amee ay fonds maanaam koppar buy tax mébét yi ñu war caa mën a yegg ndaje ma ci woote woon ci biir Sénégal ay kàngam ñoo ko woon bokkoon na ca Ndeye Aram Touré reportage ndaje mii di COP 22 dañ ca profito fexe xool nu ñuy mandargalee la ñu déggoo woon ca Paris njiitu réew ak kilifa yi fa nekkoon waxtaanee nañu ponk yi nga xam ni soxal na coppite yi am ci jaww ji nan la ñuy def ba mën ko dékku réewu Afrique yi ñoo nekk ñi gën a sonn ci li ñuy woowee émission de gaz à effet de serre. li ñu gën a teg ci table mooy problème finance mooy koppar yi koppar yi dafa am solo parce que euh, dëkk yëpp ku nekk da nga am euh, benn document càmbar sa li nga war a def lépp ci wàll woowu tënk boobu dafa laaj euh, ay koppar yu takku yoo xam ne nii dañ ko dañ ko état yi dañ ko war a am pour que jëmmal lool lool nekk dëgg. ca Marrakech njiitu réew mi Macky Sall taxaw na fa taxawaay bu am solo. mu na lu réew yu mag yi ci dëkk yu néew doole yi ngir ñu fexe mën a saafara coppite yi am si jaww ji Sénégal nag mu ngi amal ay jéego yu am solo ngir xeex jafe-jafe yooyu. Sénégal xaalul ba dam Paris ba accord bi entre en œuvre pour que mu mu jëmmal li nga xam ne mooy wàllam ci wàllu lutte contre le changement climatique boobu waaye balaa ñu doon dam Paris déjà ñun amoon nañ président inauguré na ñaari centrale solaire te lu am solo la et Sénégal fas yéene mooy énergie bu set boobu ñuy wax nga xam ne énergie bu dul yàq jaww ji fas yéene te ko yokk ci énergie globale am ba mu yegg trois trente pour cent fii ak deux yaakaar naa ne loolu ñu ngi ci def jéego yu am solo. COP 22 waxtaane nañ fa wàllu koppar gi nga xam ni réew gu ne war na ko génne ngir ñu mën koo boole def ko benn fond bu ko defee dëkk yi gën a loru ci wàllu changement climatique mën di ko jëriñoo. ci Paris kilifa yi ci teewoon ku nekk digg na ni dana bokk ci réew yi nga xam ni duñu lor àddina bi. jaajëf Ndeye Aram ture bu nu waxee mbirum jaww ji climat bi xel dem ci wàllum pajo gi muy muy wàllu yaram gi moo tax waxtaan am na fi nga xamoon ci Ndakaar itam waxtaanee walla gu ni mel ay kàngam seq nañu ko fexe daal ba lépp loo xamante ni bii mooy mbirum xol ña koy faj di leen duppee ay cardiologue ñu war ko mën a taxawem Sénégal daloon na congrès bi ndaje mu yaatu lañ ci woote lan bëgg mooy fexe ba méngale doxin wi ak jamono xarala yu yeesim ba lépp gën a mën a tegu ci yoon ndaje mën ci woote woon fii ci Ndakaaru Ayaxa Njaay ma nga ci woon un reportage. Ganaw ba amé amee xam-xam màcc jëm ci xaralé yi ñi liggéeyee cardiologue yi gis nañ seen bop bu baaxa baax ci cardiologie interventionnelle yi résultat yi ñi am ci mbir momé mo gën fuuf ci ñu daan am fenen ndax paj mi ci lay gëna a bu njëkk cardiologue bi garab rek la amone diko joxé mais su fekkente ne amul garab obligé euh la ci chirurgien cardiaque bi chirurgien cardiaque bi lu muy def. xar dënn bi taxawal xol bi euh, def liggéey ci li muy liggéey taalaat ko mu dem mais léegi nag euh, cardiologie interventionnelle ay technique la yoo xam ni dañuy jaar ci sidditu nit ki pour euh, dem def liggéey bi ñuy def. bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki fi teewal jëwriñ ji ñu dénk wàllum wérgi yaram nguuru Sénégal amal na ay jéego yu rëy jëmale ko ci ñu yor feebaru xol. société sénégalaise de cardiologie bi professeur Ba jiite tey gën nañu won li nga xamante ni moom la ñu liggéey ci wàllu cardiologie ci sun suñu réew bokk na ci lu aju ci wàllu formation bi maanaam tàggat nit ñi ba ñu mën a nekk ay spécialiste mën a ñi seen réew bokk na ci wàllu gëstu bi bokk na ci wàllu faj bi bokk na ci wàllu yeete bi ak ci wàllu euh, prise en charge disposition yi ñuy jël si suñu réew pour que ñi am feebar bi bu ñu ñëwee ñu fekk fi lu ñu soxla mën nañ ñu wax ni Sénégal avancé na ci. liggéey bi Sénégal def dinañ ko méngaleek ak liggéeyu yeneen réew yi comme Afrique subsaharienne Maghreb waaye tamit yu Europe yi asi ak Amérique congrès bi dina àddu ci question yu jëm ci ni ñu war a taxawalee feebaru cardiovasculaire yi ci bépp anamu wér gi yaram. Adja Ndiaye jaajëf tey jii di àjjuma mooy bëccëg bu mujj. wala sax guddi gi mujj ci buux bi fee nga xam mooy teewoon dëkk bu sell ba fekk ñuy waaj gàmmu mo taxit fiñ toñu toll ni tembe sax gàmm googee lépp kay jël nañu ko digënté nguur gi ak kilifa yi saytu organisation gàmmu gi ci kayum karangem walum courant ak lepp luy takkere rek ñom seen ñu xuus ci awon ak El Moussa Bey ay ngi dëkk Kuli Gijaan di taalibe serigne babakar yaakaaruma ku ñaaw yalla ku di serigne babakar ci muy sama serigne ma judd ci yaru ci màgg fekk samay waji lolo ma bolé ak eh, burdu bi ma jóge Thiès eh, sunu borom dogal ba burdu bu tambalé ba légui chaque jour man ak sama woleur bi nga gis sama wet muy Issa abdourahman bu ñu ngi ñëw chaque jour di téwé burdu bi fi pratiquement bu ma amul contrainte toujours dumay ñëw tiwan burdu en général taalibe yi di ko fu nek ci réew mi ngir ñëw rek mëna a li nga xamné modi burda bi fi ci tiwawan ku nekk nag ci ñoom di firnde lu waral mu taamu dëkk bu sell bii. buddu imaam bu seeru bindoon pratiquement xaw ma ci woon dara mais boo ko daan dégg dafa ma daan marqué ci façon boo xam ni fii daal laa ko daan dégloo daan na am nag yeneen burdu yoo xam si ni mooy bu kaab bi bind ak yeneen yoo xam ne nañ ko jàng mais burdu imaam bu seeru moom vraiment li ma ci daan yëg daaw ma ko yëg fenn. loolu moo waxoon moo taxoon toujours mu daal ñëw Tiwaan. feeg maa maa ngi koy budde ci rawul sëriñ Babacar bii ñaan sama soxla di ñaanal sama njaboot ak mbooloom jullit taalibi bii mom, gannaaw ay déplacement am yo ya def bes bu jot ngir ñëw amal fi burda bi fii ci zawiya Seydi Aboubacar Sy mu ngi firnde ni aljuma bu jot fii la koy fekk ngir jullee fi ak taalibe yi amul luy xew Tiwaawan man ak sama wóolëre bii nga gis Issa Abdourahmane Abdou te duñ fi teew parce que ñun euh, tarixa bi rek moo ñu ñor ci la ñu judd ci la ñu màgg ci la ñu te mënuñu def leneen lu dul li suñu waajur yi doon def. ay dëkk yu ci mel ni cees Mbour dakaar taalibe yi ñoom fu nekk lañuy bàyyeekoo ci biir réew mi ngir ñëw rekk taataan fii ci source bu Tiwaawan bu burdu bi noppee nag ñu ci bëri dañ dellu ci seen dëkkuwaay donte am na ñoo xam ne ñoom dañuy préféré des ci dëkk bii di Tiwaawan ba ñu gàmmu. ba noppi. El Hadji Moussa Beye jaajëf waaye ñu gën a xam burdu bi cosaan li fu mu jógee ak it lu ko tax a jóg ñan ñëw ko bind ba mu ñëw ci biir Sénégal ba ñu ko fi jëfandikoo agit it taxawaayu maam Seydi El Hadji Malick fii ci du boobee dañ ci ànd ak oustaz bi nga xamante ni bi moo ñu koy faram-fàcceel am na lu mu ci dénk El Hadji ay numéro yu bëri jamono ji coupé leen li ko waral nag mooy puce kenn identifié leen peut-être gars yi ñoo dem ba moment bi ñu door a xalaat ay identification numéro loolu lu ñu waroon def bu yàgg la ko war naa ñu dem ba ci ñoom ñu jëndee puis seen lieu ñu identifier ko foofu noonu ñu si mën a utiliser pour que mu man a jëriñ jaamu yàlla yi. ñenn ci clients yi di dem sax ba ñàkk seen numéro bu ñu sukkandekoo ci ñoom délai identification bi dafa néew. man maa ngi nii sama carte dafa réer ñu ko pesam piis boobu ba léegi maa ngi nii aw ma carte bu ma ko yooyu noonu. xam nga dama ne woon dama bëgg jël sama garande ben copain waye buma ñëlé sama garande copain buma démé pour ñu abol mako ko duñ ma al quoi xam nga rek client bi nak di ñaaw ñaawlu numéro yi ñi nangu limu japp moy war nañ tok diiru ben at lata ñoo jël sa numéro diko jox kenen wa orange tamit ñom dañu waron def lool ñu tok lu eh, ma 3 mois waye eh, taw ñu sax lu ma ay 2 mois 1 mois lan tok coupé pis jamour ba paré sama pis kenen lan ko jox lool du yoon. te fils boobu noonu war naa am ak man ay lii ay juróomi at ak yooyu noonu manuma demaat di ko laajte waat feneen gars yi coupé nañ ko jox nañ ko keneen. c' pas normal sa numéro moom bu ñu ko coupé moom ah dëgg-dëgg war na def un an deux ans sax ñu door ko jox keneen parce que am na ñoo xam dañuy voyager yàgg te dañuy am numéro boo xam ñëpp si lañ leen xamee suñ ko coupé ñu war a ñëwaat. baaxul quoi. ñu bëri ci askan wi nag jamono ji ñu ngi subir conséquence su non identification pexe bi nag mooy utali agence de téléphonie ak sen carte d'identité ngir ñu mën leen identifier. mu doon soxna bi gay doon ñëwaat ak ñun ci mbirum rek puce yeeg ni ARTP jóge woon taxaw ngir ñu identifier ñu xam ki yo téléphone portable numéro boobee ndax xam mooy kan kako mom diko doxal ka ko woote ARTP nag ñi dañoo supprimer manam dañoo dal jëlee ci réseau bi tollu ci juroomi million ci ay numéro euh, portable yo xam kon léegi doxatul. leneen ñu doon ko waat mooy mbirum buuxtu boobee ak cosaan la fa mu jógee dañ ñoo léegi incha allah ci xabaaru ngoon gi ca num gën a yaatoo ndax façon équipe yaa nga ci tiwaawoon dëkk bu sell ba di fàttaliwaat googu incha allah daañu am gan ci kanam ñu nga fay xaar moom président Macky Sall dafa dem gi tam ñu ngi ci ay pexem ngir bëgg amal mobilisation bu am solo ngir teextum seen gan di njiitum réew mi président Macky Sall ñëw ci beneen wàll ci wàllum faju geek li xew ci biir yëngu-yëngu ci wàllum euh, li nga xam mooy santé ci biir Sénégal jàppale ni waa syndicat autonome bi nga xamante ni bii ay jàngalekat ñoo ca nekk ñoom itam di yëngu ci wàllum supérieur muy waa SAES ñoom it na nga doon wane seen naqaru ñëwaat nañ ci dëgg-dëgg coono bi nga xam ñu koy dund ak la tax ñu nekk ci bankum loxo ñu teewlu kenn ci ñoom muy ki nga xam si moo di Ibrahima Daly juuf dénk na ko Jibi Sax Jooni enseignants yi suivre nañ moo door pratiquement kenn jàngale woo étudiants yi seen bopp sax commencé woon nañu tiit ndax xam nañ ni SAES e du syndicat boo xam ni day dafay euh, dafay menacé rek déedéet bu ne lii dinañ ko def dinañ ko def mais fu mu nekk nii 72 euh, heures yi tey lay jeex donc yaakaar nañ ni à partir de lundi en tout cas mardi comme lundi férié la mardi dinañ dinañu dinañu delluwaat ci classe yi mais su suñu plan d'action dinañ ko continuer dérouler. njiit yi démb dañu woolu dañu woolu pour ñu mën a toog waxtaan ñu jox ñu ay xibaar yi nga xamante ni ay xibaar yu bees la. Euh, xibaar yi bees yooyu euh, lu ñu ci mën a wax mooy euh, information boobu lu ñu fa jëlee suñu militants yi lañ koy njëkk a jox ndax ñoom ñoo taxoon ñu organiser lii yëpp waaye am nañ yaakaar ni en tout cas liñ fa jëlee daal bu fekkente ne doxalee nañ ko noonu que problème yi yëpp dina saafara wu nu gën a gaawee. perturbation mu mu bañ a am université dépendrul ci ci ay enseignants enseignants li ko fi andi mooy day jàngale donc ñun dinañ continuer jàngale waaye nag. université ko ko bëgg a yëngal ñun ñu dal sa kaw loolu rek moom mooy tax perturbation am université ñu ne enseignant yi ko yëngal c'est parce que dafa am ku laal université université duñu seetaan kenn du ko yàq duñu seetaan kenn du ko laal. max doone lii moo laf laajoo xibaar yu njolloor ci seen télévision DTV gërëm leen bu wér bu leen tuxal seenum euh, seetaan incha allah programme bi day wéyandi. jox leen rendez-vous rédaction bi dana ñëwaat incha allah vingt heures ci xabaaru français waaye en direct fële nga xam mooy Tivaouane la ko jiitu tam dana fa am xabaaru marax yi dix-neuf en direct fële nga xam mooy Tivaouane xam ngeen ni équipe bu DTV ma nga foofee ca dëkk bu sell ba nga jox leen lépp luy xabaar ci gàmmu gi anam bu mu gën a mën a muccee ayib kon ñu bokk yendu jàmm ila liqa الإله في كل دين لك مني تحية وسلام خو خو bu am solo ci dëkku Seydi Hadj Malick Sy di Tiwaawoon di wa son et lumière di wo askanu Sénégal ci ab ndaje bu am solo buñ fassiyene amal ci dëkk bobé ci thème biñu japp moy Mohamed prince des lumières ñu fassiyene fa faa ki gën ci mbindee fi alayhi salaatu wasalaam buñ né suba la gamu gi ñu ci sakku téwayu askanu Sénégal na talibé chef yi ci que bu sell bi di tiwawone ci salle spectacle esplanade bu mosquée bu Serigne Babacar Sy kon nak mbokk yi xew-xew bangok buñ né suba la gamu gi ci dëkk bu sell bi Tiwaawoon rassembler une fois encore les meilleurs talents musicaux du continent pour découvrir et créer ensemble. Cette année, nous avons assisté aux collaborations les plus incroyables qui ont inspiré une musique des plus innovantes. Rejoignez-nous alors que nous vous présentons certaines des performances les plus mémorables de la saison. Des reprises au mash-up en passant par des titres originaux propulsés au top des charts. Ça promet d'être chaud ne manquez pas les temps forts de la saison de Court Studio Africa. grasse matinée de moom baax na ci weekend moom. grasse matinée dafa neex. non nànk rek na am na moom déggul olof.